ñi nga xamanteni ni dañoo am dooley pos di bëgg def forcing tel que yaa trêve ne match du am ñu ne ñoom dañu am dooley pos muy mbay Diouf Dia ak ki nga xamanteni ni moom mooy Sayer Seck avec tout le respect qu'on les doit ñu war a taxaw fii naan le mal ne se répond que par le mal en tant que autorité war a jaxase ay xale ak ay gémien di xeex ak seeni moroomu xale su ngeen gisee démb suñ leen wanee image yi bu fi écran taxawoon ñu wan leen image yi man ak Arafat huit heures la ñu tëdd dañ doon yëkkati ay bagages ci camion di wàcc fii te loolu du yoon dañ ñu fitnaal démb tëj bunt yi teg fii nekk dara du fi dugg te ba trois heures du matin gëmmuñu suñuy bët ñu nekk fii di ko def mbay Diouf Dia ñun équipe bu Touré suñuy grand lañ suñuy frère lañ di mastaw waa Casa ci seen déplacement mais dama leen di xamal rek ni leen frère yooyu sax di waa Turekunda boo leen laajoon lu leen gënal ñu ne la concert bi parce que yoon rek mooy dëgg te yàlla nit dëgg la àndal mais je vais vous dire une chose pour wax leen ni leen ñun on n'a pas peur ragaluñu lépp lu yàlla sàkk ci kaw suuf doomu aadama ak gën te ñun duñu ay mala ay nit lañ amuñu lu ñuy tiit dooley poos la am ñun ñu am dooley doomu aadama di dugal ay nit naan ay ministre wax lii ay ministre kenn waxut c'est Mbaye Diouf ja et Sayer Seck ñoom ñoo ñuy jéem a jaay ay break te ñu ngi jéggalu suñuy parents lañ nee nag uude moom ni mu la gisee rek la lay óolee ba tey ñu ngi respect mais toute guerre commence sur une table et se